صلاه النسيم في كل شهر وفي سفر حماني على ماني مع لبس والسفر صلاة نيما كوي دوندي سانت اك بيرندي اك جامو نيما خام نيب سفر بو loo bëgg ci koso boobu lay gën a jàppale gis nga ni ma koy dundee bokk na ci am na ñoo xam ne xam nañ ni sëñ ko sa boo ko nee paasu màggal mu jox la amul problème sëñ ko sa boo ko nee jox ma bernde sama kër donte mënumaa màggal mu jox la man noonu laay dundee màggal fas yéene nag xoolal ni nga may gisee maanaam màggal bu xësee des ñeenti fan noppi la maa xam ci ci ci ci daanaka bëggatumaa xam dara li may xam mooy waajtaay bi la ko tàmbalee ca dem daral dem ca poulailler ya lijjanti naal yi lijjanti lekk yi nga xamni manam maanaam ñi may dalol ku ci ñëw li nga jëk gis moy moy moy moy moy seen ko so deug deug manam nata nga gëna ci kanam gi maanaam bell gi na ci kanam gi ndax lolu sëriñ bi mënu ko digal mo waxat ne wa akramul adyaafa bi tarxi amna fa len ko xamni dafa wax ni basasatul wàcci khairun min al xiraa manam kanam gu yaato gu belli mo gën berne mo la mbokk yi ni ma koy dund dal moy sant ak berne ak jaamu yàlla amna lu graw nu ma koy dund no xamni bëgg na ñëpp xam ko saa yu ma màggalee ba bët set dama naa sama waajur damay jël dara li def sama poos bu dee junni bu dee ñaari junni ñu ko tàmbali naa màggal déwén nii laa koy dund fi kulli shay'in wa fi safar